Ousmane Ousmane Mati mbak Allah jabu safetu safetu nga Ñang Xëri mbak ki tok tuti musulman mbak mi ngi ni tok Serigne Ahmed Khalifa Niass mu mam Khalifa Niass diggante mam Khalifa Niass ak Serigne Touba ci téréb tafsiru Jalali ba mi ngi ni tok Serigne Maoudou Cissé Pir mu Baye Ahmed Cissé Pir mi ngi ni tok Aladji Eyaan Cham mi ngi ni tok bu toogee waa kër Cheikh Omar ak l'islam bi yëpp toog nañ sëriñ bi sëriñ Moustapha Kunta mu Njaasaan ma nga toog sëriñ Abdoulaye Seck Thiénaba toog Mbakke l'islam bi sëriñ Cheikh Anta Mbakke ma nga nee toog sëriñ Cheikh Aliou moom sëriñ Aliou moom Cheikh Moustapha ma nga nee toog sa doom jaa ngi nii dend ak yow jóge ci xarit général ku lu murit Cheikh Sidil Makhtar sëñ Cheikh Bara Matiley mii nga xam ni màggaluk sëñ Abdou Khadir gi yaa ñaan sëñ bi ñu ko toogal waaye daana ñëw ci saal bi lu yàgg nga doog a jóg mi ngi nii toog sëñ Cheikh Bara Laat Mbakke mi ngi nii toog sëñ Cheikhu Naar yi ma nga nee toog sëñ Xaadim Mbakke mu sëñ Mustayin ma nga nee toog sëñ Abdoul Aziz mu sëñ Xaadim Awa Ba ma nga nee toog Mbakke lislaam bi yépp ñëw na sëñ Abdou Samad mu sëñ Modou Faty xarit dinaa ñëw ci moom waaye tey nag dafa bokk ci délégation président Macky Sall sëñ Abdourahmane Niang ma nga ne toog sëñ Fallou Mbacké mu sëñ Baara Khourédia ma nga ne la toog Mbacké ñëpp ñëw na waaye ma leeral la nag président de la république président Macky Sall ah xam naa tey bu doon def conseil des ministres dana lànk ndax limaam lépp a ngi nii lu mu def kër sëriñ Abdul Xaadir gii min na ko moo tax tey mu jur Alioune Sarr ministre commerce mi ngi nii toog sëriñ Mansour si xam naa nag sëriñ bi sëriñ Mansour moom tey buy dem dana yóbbu yére yu bari si Malick ci kër gi la bokk mi ngi nii toog Birima Mangara ministre taalibe sëñ Bamba mi ngi nii toog jën jën fay mi ndox mi mi ngi nii toog Alioune Badara Cissé médiateur de la république mi ngi nii toog waaye gouverneur de la région ak préfet ak sous ak ambassadeur sëñ Abdou Samad Mbacké mi ngi nii toog Magatte Diakhaté député assemblée nationale mi ngi nii toog ak député yi fi président Macky sàll am yëpp mu jëf nag lu rëy ci bis sa taxawaay waaye boole ci sa rakk yépp ñëw na lépp lu ko waroon ci bis bi président Macky sal def na ko Mbacké ko xool bii délégation xam ni daal président tey li ma am yot na la ko Mbacké ñoom ñëpp ñëw na ñu ngi nuy toog waaye euh, sëriñ bi ma leeral la Abdoulaye Wade moom it li ma am lépp ñëw na Omar Sarr ngi nii toog coordinateur maître amadu Sall mi ngi nii toog sëñ Cheikh Bara Dolli mi ngi nii toog léegi la fi maître Madické Niang jóge président Abdoulaye Wade moo yëkkati kàddoom waxal boppam bis bis sëñ Abdou Khadir bi jóg see moom itam li ma am lépp ñëw na sëriñ bi président Idrissa Seck président réew mi nga xam ni dëgmal na sëñ Bamba te du wàññi moom it délégation ñëw na Déthié Fall moo ko jiitee ak Moustapha mbay ak délégation bu am solo ñoom ñëpp ñëw nañu waaye sëriñ bi ma leeral la xalifa Sall maire Dakar taxaw na ci bis bi jëf na ci bis bi waaye yemu ca nun fédération sëriñ Abdou Khadir jëndal nañu rajo yu ñuy jànge rajo yaa ngi ci biir kër gi yu bees peq la moom itam dikk na sëriñ bi Papa Diop day taalibib kër gi moo ko Alioune Badara Cissé mii ak Souleymane Ndéné Ndiaye sëñ Abdou Khadir la ñu yaakaar Souleymane ma ngay màggal ca këram dégg naa ma ngay firi Pape Diop barki démb la fi jóge Alioune Badara nii loolu mooy délégation yu bari yoo xam ne kii mooy parti yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yónnee ngay ndaw baa nga teewal sa bopp baa nga woote téléphone kon Mbàkke li ñu am lépp yónnee nañ ko ñëw na sëriñ bi leeral la sëñ Abdou Mbakke Ndaw sa doom meeru Mbakke moom itam dafa tukki waaye woote na téléphone yónnee na sëriñ bi sëñ Alamine Mbakke mi nga xam ni yow la yaakaar sëñ Abdou Khadir sa waajur la yaakaar Alamine foo ko seen muy dem bu laajte ci sëñ Abdou Khadir la jëm moom itam ma nga ne ànd teg sëriñ Maar ak délégation bu am solo ñoom ñépp dikk nañu sëriñ Abdoulaye Jaxate ma nga ne lay toog mooy borom dëkk Touba waaye sëñ bi ma leeral la monsieur le ministre maire Touba Cheikh Abdou Lahad gor sii toog jëfe na ci bis bi yéeneem ak waneem ak xam ni diggante Cheikh Abdou ak sëñ Abdou Khadir ajuma gaaw la benn bis dox fi Abdou Lahad Ka mii as gor la soo xam ne sii mi ngi ci dëkk bi liggéey waaye du dugg benn kër sëñ Touba ñu tëju ko moom itam Mbàkke mi ngi nii. sëñ Galas Kaltoom sa doom moom itam Mbàkke ma nga ne délégation yëpp ñëw nañ xarit yi soppe yi wëlëri yi ñëpp dikk nañu Badiya Suweer ma nga ne toog Gasama ma nga toog Cheikh Abdoulaat Moussa Soyibu ma nga ne toog délégation yi ñëpp ak bokk yi kenn desul waaye waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh Roqee yebal na fi doomam léegi waa kër sëñ Modou Aminta ñëw nañ ca suba sëñ Cheikhu sëñ Cheikh Mbakke Daaru Rahman ñëw na sëñ Moussa Mbakkem Cheikh Abdoulaat ñëw na sëñ Fallou moom Cheikh Mamadou Bachir ñëw na ñoom ñépp sa mag yi kenn ku ci nekk yónnee na ndaw ndaw lu mat ndaw yebal ko ni ko maay seen Cheikh seen Cheikh mooy man Mbakke loolu mooy bi nga wootee waaye daal a Mbakke ma baamtuwaat ko si Malick lii lislaam bi yembe tey ah lu waay yëkkatee ci tey te du noonu da ko teg fi suuf lislaam ànd nañu nekk nañu benn waaye ancien ministre Serigne Lamine Diop dañu woon booy dox ci penku booy dox ci àll ne ba penku réer la boo séenee sëñ Abdou Khadir kabaral mooy penku yàlla rek ko ñor lislaam rek ko xam naa moo tax lii am tey ma jege sëñ bi léegi ñu jox kàddu gi Alaaji Buso ñu ngi tàmbalee waxtaan wi su ko defee sëñ Alaaji Buso nu déglu ko nun ñëpp bisimilah. ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci at mu bees mi di leen bal wax di leen bal àq te leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan di xam ne ne jataay bii ñu ngi koy tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi tàmbalee jataay bi nag ci li ñu ko war a tàmbalee mooy bisub Seex Abdul Xaadir képp ku koy màggal di ko fàttaliku la ca jiitu mooy jàng alxuraanu karim kon ñu ngi jox al imam Abou Bakrin Mbeng mu jàngal nu alxuraanul karim ñu ubbee ko jotaay bi al imam ñetti laay rek من الشيطان ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم جرجف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi nuyu suñu kilifa yi fi teew yépp di leen ziyaare di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bi di fas yéene yëkkati kàddu yu gàtt rekk ci ndikalul sëriñ bi jëmale ko ci kii nga xam ne moo waral jotaay bii di Cheikh Abdul Qadir radiallahu anhu wa arda ndax fàttaliku Cheikh Abdul Qadir màggal bisam mooy fàttaliku jaamub suñu boroom subhaanahu wa taala jaam boo xam ne bu doon xeeñtu sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegoon ci tànkam doon koo xam ne doon na jëmmal njàngalem Sëriñ ako akub yaram kon fàttaliku ko mooy fàttaliku koo xam ne royukaayu woy gëm yàlla yépp la ci gëm yàlla gu dëggu royukaayu képp koo xam ne danga dëddu àdduna royukaayu képp koo xam ne danga wax wakkiirlu ci sa boroom subhaanahu wa taala fàttaliku koo xam ne waliyu la ci waliyu yàlla yi nga xam ne ci jëfam may na ko cër boobu waaye fi mu bàyyi koo may na ko cër boobu mu doon koo xam ne ay jëfam ay waxam doxalinam jëflenteem lépp dafa doon jëmmal njàngaleem Serigne Touba radiyallahu kon bu ñuy ubbi jotaay bii ci lenn ci am njàngaleem lenn ci ak dundam loo xam ne dana mën a nekk yóbbal dañuy jël benn tomb rekk mooy nafaul xalqi mooy jariñ mbindéef yi jariñ mbindéef yi benn la ci jikko yi Serigne Abdou yu bari lool yum jikkoo woon mu doon jikko joo xam ne ñépp xamoon nañ ko ci moom te mu doon jikko jum den donne woon ca waajuram wa radiyallahu anhu mu cheikhul xadim ndax moom day ñépp ñoo xam ne jamonoonte nañu moom te amul maandu nangu woon nañ ne njariñul mbindeef yépp la woon moom la Cheikh Sidiya ويت ويموسي ون وما عيبه إلا عبادة ربه ونفع الورى في صبحه ومسائه موم سرين توبا فكون امنا ايب ايبم جان لا موي جامو يالا اك جارين مندي في كي جنون كي لولاي سرين توبا رضي الله عنه موم موكو ne ko lii awsi lilladi uridu wan fai biyal yara wara yaa mughniyan anil fai moo ñaanoon boroomam ne ko lépp loo xam ne bëgg naa ko yàlla nanga ko indi wammatal ma ko te yàlla nanga jariñ mbindeef yi ci man kon koo xam ne mi ngi jóg di ñaan yàlla jariñ mbindeef yépp ci moom kon kooka loola lu ko yitteel la woon te suñu boroom nanguloon ko ko موتخون موخون الله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر كون سيغ توا يالا نانغولون نكو نيانام غوغو بام نيكون جارنيول بيندف ييب لولاي سيغ توبا رضي الله عنه داكو دوني وون تي محمد صلى الله عليه وسلم ndax yonent bi mo waxon ne minde fi ñoy njabotuk suñu borom kon ki yalla gëna bëgg moy ki gëna jariñ minde fi الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله كون جام yàlla نوي ñooy njabootug كون كي ki كي a ki صوب موي كيغا خامني مو اوبل nga مي ديفي موتاخ نيتوك njariñ mbindéef كوي ناتي موي nitug لوم عمل مي ديفي lum amal ndax ki yàlla gëna bëgg moy ki amal ndariñ mbindéef te yàlla mo wax ne xejjam bi nga xam ne da koo jaamu ba jege ko jaamu ko man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil xarb wa ma taqarraba ilaya abdun bi afdala mimma aftaradtu alayhi wa ma zaala abdi yataqarrabu ilaya binnawaafili hatta uhibbahu kon yàlla bu ko jaam bi jegee da koy bëgg kon li ñuy màndargaal bëggub yàlla jaam bi mooy jaam ba di jariñ mbindéef yi kon képp koo xam ne amaloo njariñ mbindeef yi lu luñ la mën a waxal ci ak wilaaya loola moom du lu yonent bi sallallahu alayhi wa dëggal kon li ñuy natte ak mbaax akuk wilaaya mooy nga amal njariñ mbindeef yi koo xam ne nag sa njabootuk bopp rek amaloo leen njariñ kon sag wilaaya duñ ko mën a nangu Cheikh Abdul Xaadir radiallahu anhu mu doon koo xam ne xëyam ak ngontam lépp ci njariñ mbindeef yi la ko jëmale woon jariñ leen ci seen diine jariñ leen ci seen àdduna ci ay ñaanam ci di leen xool ba tub yërmande ci di leen gind di leen digal lu baax di leen laabire waaye di leen dimbale mu doonoon koo xam ne dafa yittewoo woon lool diine yi nit ñi di leen wommat ci siraatul mustaqim di leen digal ñu sax ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye boole ci di fokk du nelaw ci seen yitte ak seeni aajo moo xam aajoy jàng la moo xam aajooy faju la moo xam aajooy dëkk la moo xam aajooy denc la moo xam aajooy liggéey la moo xam aajooy kuuy ji boroomam ñu war koo taxawu mu mel ne Sëriñ Abdul Xaadir cër bi ko yàlla joxoon lépp da ko wëlbati tàggat ko jëmale ko jariñ mbindéef yi kon nag jikko la joo xam ne war nañ koo fàttaliku ci moom jamono joo xam ne mbindéef yépp aaje woo ku leen dimbale kon képp koo xam ne yàlla jox na la cër moo xam cërub diine la moo xam cëru àdduna la cër boobee nga walbatiku jëmale ko ci jariñ mbindeef yi ndax mbindeef yi aajo woon nañ ku dim ku leen dimbale ndax seeni aajo bari na ci wàllu wàllu yëpp kon képp ku amul cër sa yitte mooy jariñ mbindeef yi roy ko ci Cheikh Abdul Xaadir radiallahu anhu wa nafaana bihi kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne képp koo xam ne Sëriñ Tuubaa lam jàngale fa nga teg sa tànk ya loola rek mooy sa dund tey ak ëllëg kon ñuy sant yàlla suñu kilifa yi nga xam ne yàlla boole nañoo ñun ca ñuy dund njàngaleem Serigne Touba seen dund gépp dañ ko tàggat jox ko bindeef yi ngir jariñ leen kon loola mooy yoon wi loola mooy royukaay yu bind la benn bu ndaw lool ci mbind yuñ mën a jële ci dund Cheikh Abdoul Khadir radiyallahu anhu kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram fa mu nekk ñi ngi ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom teg ci loxo ba àggale seen yéene ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Sidou Muxtaar radiyallahu xafisahullahu wa ayyadahu yàlla yokk ak wéram yokk aw fanam ba li mu yéene mu àggale ko ñuy ñaanal sëriñ Cheikh jëwriñu Cheikh Abdoul Khadir yàlla yàggal ko fi lool ak mboolem jabaru Cheikh Abdoul Khadir ñuy ñaanal bokk yépp yàlla defal leen fajug aajo tayug ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu السلام عليكم ورحمة الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الإخوة الأعزاء أصحاب الفضيلة من المشائق والعلماء والإخوة الكرام أصحاب أصحاب المعالي السادة الوزراء الإخوة الحضور إن الكلمات لتبادر إلى ذهني محاولا التعبير عما يجيش في صدري وتحدثني به نفسي من شكر جزيل وعرفان فضيل على مشاركتكم الفاعلة وحضوركم اللفيف في هذا الاحتفال الديني الذي يقام سنويا للذكرى ميلادية هذا الإمام الأورع السي عبد القادر مكي الذي ضحى بكل شيء في سبيل حقيدته ودينه ولم يخف في الله لومة لائم فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا فبهذه المناسبة السعيدة التي أتناول فيها الكلمة للترحيب والتهنئة والتبليغ تشكراتي سرين شيخ يسهدني أن أتوجه إليكم بالتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فإن المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى عناصر أساسية تقوم عليها حياتها ويستقيم بها أمرها كاتماه المسلمين مثلا في المناسبات الدينية وفي الندوات وتوحيد كلمتهم وصفوفهم وتبادل الآراء ووجهات النظر ووه وه وه وما إلى ذلك فإذا غاب عنصر من تلك العناصر فستنقطع الروابط الدينية والاجتماعية وتتلاشى الصلات الإنسانية والدموية التي تربط بيننا فتصبح الأفراد في المجتمع وحدات مستقلة بعضها عن بعض لا يشعر أحد بأي صلة تقربه من الآخر فلذلك نبارك جهودكم الجبارة في هذا القبيل ونتمنى لكم كل الخير والسعادة وندعو الله تبارك وتعالى أن يجازيكم بأحسن الجزاء ولا يفوتني هنا أن نتوجع باسم سرين سياحو باسم الأسرة جمعها بالشكر الجزيل والثناء الوفير إلى صاحب الفضيلة سماعة الخليفة العام للطائفة المريدية السيد سيد, سيد مختار مك أيده الله ونصره وأتم مراده على دعمه المادي والمعنوي لهذا الاحتفال كما أتوجه بالشكر إلى الوفود الرسمية كالوفد الرفيع المستوى الذي ترأسه الإنصار وبعدد من الوزراء والشخصيات الإدارية والسياسية وغير الرسمية كالسادة ممثل الطرق الصوفية وممثلي كل أطياف المجتمع ونشكر كل كل من أسهم في الاحتفال عرفنا ومن لم نعرف وأخذ وأخص بالذكر هنا لجان تنظيم وضيافة وصحافة وكلها من وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يين بوك جولي دي يين نيغا خامن xam ne yéene kilifa yi diine yi fi teew di boroom xam-xam yi yéen ñi nga xam ne yéenay eh, kilifa yi àdduna yi fi teew ci ñaari wàll yépp ñi ngi leen di nuyu bi nga xamee ne maa ngi bëgg a wax dafa mel ne baat yi mi ngi njëkkante ci sama xel ma bëgg a jii ma expliquer lii fuur ci sama dënn ci ay cant ak i kat ak sama xel di waxtaanal ci cant bu dijj ak nga nga ne njekk lu wér luñ xam ci ñëw gi ngeen ñëw bokk ak ñun bis bu mag bii te defe ko nam ware ak toog teew gi ngeen teew massivement ci bi ci feetu diine gi nga xam ne ñi ngi koy defal Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mi nga xam ne dundam bépp sacrifié ne ko ci diineem ci yaar la ko sacrifié ci pastéefam ak diineem daana daana wax ne mag du foyee diineem baat la boo xam ne daana daana ko faral di mag du fooyee diine kon nag loolu loolu la dund moom la moom la jëfe musta faale it ci wàllug yàlla yaddu ko koy yadd maanaam lim jàpp ne dëgg la du ci rus kenn lool lool ab daraja la ci yàlla ndax lu jafe la ndax kerse mën na laa jàpp ci dara wallaahu laa yastahi min al xaq kon nag yàlla ko yàlla fay ci occasion bi may waxtaan ak xam ne maa ngi jël kàddu gi fii nag ngir bëgg a dalal dalal leen ak félicité leen ak jottali leen cantu gi nga xam ne ci sëñ Cheikh la jóge jaar ci famille bépp jëm ci yéen ñi fi teew yépp muy bokk yi ak délégation yi rafet na ci man ma wax leen nuyoob lislaam mooy ma wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xamal leen ne ginnaaw bu ma waxee loolu société islamique dafa soxla ay éléments yoo xam ne ci lay fonde mbiram ci la mbiram di taxawee ci lay jube loola mooy lu mel ne lan lu mel ne jullit ñi di dajaloo ci ci ci cérémonie yi nga xam ne mooy yu diine yi ak di daje di waxtaan di gise di sottante xalaat di bennale seeni kàddu ñoom jullit ñi di e, rankal rankalewaat seen sàppe di weccee xalaat di weccante ay gisiin loolu ak ak yu demee ne yoom lislaam dafa yooyu mooy li nga xam ne mooy élément yi nga xam ne mooy composé wu islam taxaw ca loola maanaam mooy mooy dundal lislaam lislaam élément yooyu ngay dajale moom mu taxaw nag dundal lislaam waaye élément yooyu bu ci benn manqué rek li woon nit ñi ci li leen lëkkale woon ci seen diine ak li leen lëkkate ci affaire sociale bi leen ci lëkkale woon day dakk boo ko defee liñ doon jokkoo ci wàllum niteeg niteeg doom moroom ja day naax saay li nga xam ne mooy deret yi nga xam ne moom moo leen boole woon ci bokk day mujj te yeewoon leen day mujj xët dag bu ko defee nag day mujj nit ñi au lieu ñu nekk ay société bi dañuy doon ñu beru ku ne ber beru noonu ko sëñ mu Kay waxe ku ne ku ne ku ne ku ne beru ne manum lëm kon société bi mel noonu lay doon bu ko defee nag kenn du yëgati ne ndeke sama mbokkum jullit mi jege na ma ak moom wala am na ma ak moom benn relation bu boobaa loolay loolay am eh, yàlla na ci yàlla musal te loolu nag lu mel ni lii rek ak i moroomam yi jëflante mooy lii dindi loolu kon nag alhamdulilah moo tax ñu lu seenu jataay ci bi nga xamee ne si loolu lislaam bëgg moom la jëf yi di ko jëf ci kem yi kem yi kem yi lii ñu ngi leen di sant di rafet seen rafetlu seen taxawaay bu rëy bi ngeen def ci googu wàll di leen mébétal yeen ñëpp aw yiw ak lu baax di ñaan yàlla mu fay leen yéen ñëpp di duñ duñ buñ noppee ci loolu nag duñ ci teg lu dul sant xalifa général des sant ko sant bu dijj kañ ko bu baax ci li nga xam ne moom lay jàppe ci bis bi ak lu dul bis bi ci mboolem rek ittey kër gi ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci addaamul mardi wal maanawi yi muy def ci fenn ko ñaanal yàlla dëgëral ko jàppale ko bi lool wéyee nag ñi ngi sant délégation yi fi ñëw yëpp yu officiel yi ni ki délégation bi nga xam ne moom la gouvernement bi yebal te Alioune Sarr jiite ko ñu ànd ak ay ministères yeneen yu bari ak bi nga xam ne du officiel mooy ñu demee ne mooy ñi nga xam ne ci wàllu opposition bi lañ ne te teew fi ni ñi jóge ci eh, Euh, ñi fi Ablaye Wade yebal te Omar Sarr mais jiite leen ak Madické Niang ñoom it ñu ngi leen di nuyu ak ñi àndal ñëpp ak yeneen ñi fi teew lépp ci ci wàllu kilifay diine ko képp koo képp xam ne teew nga fi ci kilifa diine ñi ngi lay sant muy mbooleem ñi nga xam ne ñoom la fi tariixa yi yebal ni ki Sidi Ahmed mii ak ñeneen ñi fi teew ñëpp te tariixa yi te Ablaye Bay tuddoon leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen jot loo ci suñu Maodo suñu nuyoo ak suñu cant di sant nag mbooleem daal ñi fi teew te teewal fii rek dara lu bokk ci société bi waaw moo xam ci société civile lañ bokk moo xam ci kër yi ci kër yi diine yi fu ñu fa mën a bokk moo xam di ay jullit rek waaye teew nañ fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant mbooleem mu ma filu kulli atyaafil atyama eh, mujtama bi daal ñu ngi leen di sant di sant it ñi nga xam ne ñoo participé ci màggal gi ba mu tàmbalee ba tey ñiñ ci xam ak ñi ci xamut waaye ñoom participé nañ ci rek ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant nag ñi ko doon organisé ñi taxawoon ci organisé bi ndax wax dëgg yàlla seenu liggéey rafet na ba liggéey bi mel résultat bi ñun ñëpp natiije mal moo salañam wax ne ñun ñëpp ko daj kon ñi ci ànd ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant di rafet seenu taxawaay di ñaan yàlla fay leen ci daraje Serigne Touba di ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yoroon ngane nganale gi ñu ngi leen di sant ak mboolem ñu yoroon presse bi nga xamné ne fan yi yépp liggéey bi war ci jot li bi ñaari semaine ngeen ni wala lu ko wala ñett semaine yo xamné ne la ci war lepp ñom wa presse bi ñing koy def ya ñomit ñing leen di sante tey ñaan ku ci ne ci la ngay liggéeyee yalla na la ci yalla defal ndolleen ci daraaje yi sëñ abdou Xaadir Mbakke daraaje sëñ touba mi nga xamné ne fi dajé ñun ñepp ñi ngi sante ñepp nak di ñaan nak mbollem rek ku ci non sag bagan rek ci daraaje daraje touba yalla nak yalla la sëñ touba duyel bu baaxa baaxa baaxa a boo ko defee nag bu loolu jàllee ñu jot leen ay kàddu yoo xam ne ci sëñ Seex mii la bàyyi ko fas leen yëgal ne am na lum bëgg a fas yéene taxawal ñu di ko wax ab fondation mu bëgg nag dafa nekk ci toppatoo gi te matul waaye mu bëgg nag ñi ko war a yëg ñëpp ñu yëg ko xam ne mu ngi koy toppatoo te te rafet na njort ne balaa yàgg lépp dana mën a sotti bu sottee ku ci ne la cay sëb cir danañ la ko ci jox waaye nag ginnaaw lu muy def la rek te yenu yanu yanu ko tigaal dañoo war a yéegoo waaw ñu mu tax ñu bëgg leen koo teel a yëgal waaye bu sottee ku ne la cay sëb ci cër ci fondation bi danañ la ko xamal nga te te te fàttewuñ ci kenn ku ci war a bokk mu ngi leen ko yëgal dafa séene bu noppee it ku ci ne lay sa sa warugar nga liggéey ci bu baax te jàpp la ca topp mooy fédération. bi nga xam ne moom lañ sos ci biir réew yi ak ci bitim réew mu ngi ci soññ mbooleem ñi aju ci kër gi képp koo xam ne bokk nga ci kër gi foo mën a nekk te fédération boobu sant nañ la nga bokk ci ngir liggéey yi ñuy def ci kër gi mën a gën a jàppale mu ci mu ci kenn rusaanu ndax sëñ Abdou Khoudoss daana wax ne at taxallu yooyu bu taxallu ba rusaanu day waral des gannaaw kon nag yàlla na yàlla dimbali ba ba ba ba ba kenn bañ a ruusaan boo ko defee nag la ca topp nag mooy ma tëjee ko wax ji mooy ñu xam ne war nañoo dalum xel ndax sëñ Tuubaa mi ñu àndal moom nga xam ne moo ñu fi dajale ñun ñëpp ñi ngi ñi ngi koy sant te war a rafet war a rafet njort ngir moom ndax moom dafa diggoon alxuraan lool lool lool lool lool dégg goo xam ne su ko yàlla defal la ndax arrahmaanu allama alquran yàlla mooy xam le alquran moo ko xamaloon xam goo xam ne dégg na ko dégg wér goo xam ñépp xam na ne xar ci ka ay karaamaam la bokk dadaa wax naan qul in kuntum tuhibbuuna allaaha fattabi'uuni yuhbibkumullaah ngeen nee yàlla yàlla fum mu attafewut fu mu attafewut waaw ci alquran nee na boo koy def rek def def ci ak sotti ci lay doon defal rek ma dal def automatiquement ma defal la li nga li ma dal ne bo beugé motax mo ne yonenté bi bu ngeen xolen kuntum tañu bona bu ngeen fekkee da ngeen beug yalla yàlla fatta bi ne ngeen ma top man rek bi la bi rek yalla la dal li beug kon non la ko sëñ Tuubaa firi nee mu am waw nak, dana am waaye dana yag wattaqullaha wa yuhalimu laa ragal leen yàlla ba mu yàgg ba yàlla nattu leen ba xam ne ragal yàlla gi dëgg la boo mu laa yàlla xamal leen nag ngeen ak xam-xam xam-xam boo xam ne gone day xam ne lii ci yàlla la jóge gis nga nu ngeen di firee ñaari laay bu ko defee nag dafa am bisit muy firi ci xasidam yi mu bind boo xam ne sëñ Malick Bassine ku mën a dégg waxi sañ bi la te moom it sëñ bi déggaloon ko lu bari ci alxuraan dégg naa ko sëñ bu Xaadir mu wax mu ne sëñ Malick ak mu yem seigne malik bassinat ci ni ko sëñ bi deggal alcorane sin déggee won ci wu seigne li may bëgg wax nak seigne malik bassin da fekke ne ci jotaay bi seigne bi ne lakaru joo hii bi ghairi wala xataay mu ngeen koy firé yéen ndaw yi soxna sëñ Malick ko ah mbàkke de lol bo ci joxé ni lakka ñeal na la rujoo hii sama dellu si samay mbolo bi xayri joxe ci lu du xiif wala xata jóge nag juum lañ yaakaar moom lañu fi de am firi la ci waaye dëgg dëgg firi ma mooy lakka rek la ne yow yow yonente bi rujoo yi sama jofal maxa jumoo yi ànd ak samay gàtt bi xayri yi te benn du ci làpp wala xataay du ci génne mooy parlu ba ndax mayuma porlu kon nag war nañoo sant bi ñu àndeek ku ñu sàmm ab sàmm boo xam ne danañu jofalal te duñ làpp ndax muyuñ parlu ba nañ yàlla na nu yàlla dimbale bañ bañ a génn saawoo gi rek sax ci ndigalam yi te bàyyi ay tereem moo ñu moo ñuy dimbale kon nag ñi ngi fasaari ñëpp ñi ne ci biir réew mi ak ñi ñi ne ci biti réew mi kullu xaamin wantu bi xëyrin di siyaare suñ mag ju baax yii si Abdul Fataa nga xam ne at mu jot mooy toog ak ñun ah, xam ni kër yi demee at mu jot cër bu cëram mu ñëw wettali ñu xam ne mooy suñu mag ngi fay gërëm di ko sant ak mboolem nag bokk yi fi yëpp asalaamaaleykum wa noo ngi sàkku ñaan nga ñaanal ko te ñaanal presse bi yëpp ñoo ngi jox kàddu gi nag borom jotaay bi tey nag sëriñ bi ci gan Cheikh Mat Fadal Mbàkke 45 la sëñ Fallu toog ci xalifa gi ni kuur bëndëng raf la meng jiba muut dafa saf bandar juróomi soolos tan fal waneel waneel caabi doog fee jóge xaadim borom nit ñi sëñ bi bisimilah سرين توبا شيخ سيد المختار ديكو نيار نمو ياغي فتبير لول اك نجابو سرين توبا جيب اك نتالي بي يب ما ينوي سرين شيخ موم شيخ عبد الخادر ديكو نيار نمو ياغي فتبير لول اك نجابو شيخ عبد الخادر يب كل في دين لي فداي يب تيتك نيو بي سي سمارك سرين احمد سي بغ مو جوتال ما نيو بيب سي كل في دين لي فداي يب داخ ياكار ناني كو خامني داغا بوك سي يوسف تودو nga jël sab nuyoo teg ko ci ci alhaaji Malick si war na ko jotteel Seydi alhaaji Malick si war na koo jottali eh, li jullit yëpp kon nag Seydi Ahmed sama rak sama xarit maa ngi jox nuyoo bi bëgg nga jottali moo ko ci bokk yi fi dajee yëpp maa ngi nuyu itam ñi xam ñoo la président eh, Macky Sall yabal te ministre Alioune Sarr jiitu ko ak ñi mu àndal ñëpp wax ja na du gudd gannaaw bu ma nuyu bokk yëpp maa ngi nuyu ñi nga xam ni maa maa seen i mag ak sama doomi bopp yi fi daje yëpp su ma limee dama jom waaye ñoom yëpp xam xam nañu xam naa leen ak bokk ci daje yëpp di wax nag ci loo xam ne lu lu gàtt la ndax euh, Cheikhana Abdul Xaadir dañoo wax ni bi mu bi àdduna sëriñ bi dafa maam ci Ibrahima Fati ne ko gan googu day dama am gan goo xam ne gi genn la ci man waaye nag na nga koo yëgle te boo boo ko yëgle nag koo dajeel na nga xam ne xetul xet na nga na nga na ngay na nga na nga na diibal say tànk te ko xam ne ko daje koo dajeeg moom xeet la ko roteeg ëllëg Cheikh Modou Fadal daana wax ne sëñ Mourtala moom moom Cheikh Amadou Khadim moo nu mujj fa sëñ Touba Khadim Moustapha kon nag Cheikh Bassirou yaa nu yaa nu mujj fi Cheikh Abdoul Khadir noo ngi wax loolee Pape Thiaro waxoon sëñ Touba waxoon Mame Thiaro Ibrahima Fati ne ko koo dajeel na nga yaxal sa tànk koo dajeel da mbiram daan def teeg ëllëg maa ngi dégg ci bi Cheikh Moustapha mi def déclaration bi wax ni nañ ñëpp nañ taal nañ taal restaurant yi ndab sëriñ bi dana ko duy ba fees kon ay sëriñ Cheikh maa ngi leen di poñe bëgg ngeen wax ak sëriñ bi ñun ñëpp ñi fi nekk ñëpp ñu teewoo ñu teewul ku ne am ngay aajo aajo yi na faju te itam bu fi kenn jóge jàpp benn ndax sëñ mën na lépp loolu wakul laa bantum xayra jisaakum laa na xayra jisa yàlla na ko teewaat na gën a déwén te lépp ànd ak xéewal jërëjëf xarit Moustapha ngeen jëf xam na nga ni dafa nekk ci tukki waaye kon ci délégation bii lay ànd dalal leen waaye mu wax seen jiili mii nga xam ni dafa yaroo ci biir kër Cheikh Abdou Khadir te mu nekk moom mu ni ko siyaareel ma sëñ Cheikh te booleel te ma ci ñaan gi ne ko fi ma nekk moom laa fa nekkal moom itam Mbàkke yónnee na délégation bu am solo sëriñ bi bi may lim délégation boobu jógee ci Abdoulaye Wade Alioune Thiam male ci la bokk ak ma Mayoro Faye ñoom itam àndante ak délégation bi dikk xanaa sëriñ bi rek ki ñu bëgg a jox kàddu gi mooy sa mag ju baax ji ki ñu bëgg a jox kàddu gi doomam ju baax ji di sëriñ Cheikh Baara Mati lay ki ñuy bëgg a jox kàddu gi di sëñ Cheikh Bara Laat sëriñ Ahmed yéen l'islam bi yëpp maa ngi leen di seedeel bi nawet bi de nawet bi wàccagul Cheikh Sidil Maxtaar dafa toog ba mu yàgg mu ni mënatumaa dékku dara ngir jur gi xiif bi ñu xiif jàmbat yi ñuy jàmbat maa ngi ñaan ci yàlla ñaan ci Sëriñ Tuubaa ñaan ci Ahmadu Lamin Baara ndoxum jàmm am ci réew mënatumaa tëdd ba nelaw ndax jur gi ku mun ta tëdd ba nelaw ndax jur gi nag doomu aadama du ma ta wax sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp ci turu Cheikh Sidi Muxtaar wante mën naa wax di ko di leen nuyu ci turu kaddu sëriñ Cheikh Bara Matiley ndax mooy kilifa ci eh, délégation bi nga xam ñoo ànd ñëw teew fii tey ci suba dikkoon nañ fi ànd ak Serigne Moustapha am yeneen yu ko dab mu dem ca mu wax Serigne Cheikh Bara mu jiitu ci sunu kanam kon mën nañoo wax tey ci kàddoom la ñuy wax waaye mën nañoo wax tamit ne ci kàddu Serigne Bassirou la wax. di nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo boobu sëriñ seex mi nga xam ne moo waral jataay bi ak mboolem njabootu sëriñ Abdoul Khadir bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ak dongo yëpp di nuyu kilifa diine di nuyu Serigne Abdou Fatah mi nga xam ne. mooy kilifa jitaay bii tey jii di ko jot li nuyoo sëriñ bi ak ñaanam di nuyu itam bu ma tuddee sëriñ Abdul Fatah ak sëriñ Moustapha daanaka ak sëriñ Basiiru ak sëriñ Siidi waa kër sëriñ bi mën naa wax ni tudd naa kilifa yi nga xam ne toog nañ fi yëpp kon may jël seen nuyoo di ko teg ci loxo sëriñ Abdul Fatah mu jox mu tegal ma ko ci loxo sëriñ Cheikh mu jot li ko kilifa yi fi teew yëpp di nuyu itam sëriñ Siidi Ahmed. comme ni ko sëñ Abdou Fatah sama wayjur waxee buñ jëlee nuyoo kilifa diine yi fi nekk yépp teg ko ci loxoom teg ko ci loxo Ahmed Niass teg ko ci loxo Iyane Thiam waaye teg ko ci loxo Sidi kon dafay mel ni ñoom ñëpp jot nañ ci kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam kàddu yi nag eh, mën naa bañ a gudd ñoo ngi nuyu itam Alioune Sarr ak Mansour si ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite délégation bi nga xam ne moom la fay président yabal di ko jot li di leen di leen yóbbante nuyoo Cheikh Sidi Moukhtar ci président ak ñaanam ak cantam di nuyu itam Omar Sarr mi nga xam ne moo jiite ñi fi Abdoulaye wat yabal di leen yóbbante nuyoo ñoom itam di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn eh, sëriñ Cheikh démb ci timis sëriñ bi daf maa woo ba ma ñëw mu xamal ma ne bu suba ngeen àndandoo dem ca màggal ka daal di may wax ni ma soo demee na nga ma ko santal ci kanamu mbooloo mi te kaddu yii may wax maa ko wax soo demee na nga ko wax daal di wax kaddu ya kaddu ya mooy dafa wax ni Serigne Cheikh mii day na nga wax ni ab la yéen taalibe sëñ Abdou Khadir ak njabootu sëñ Abdou Khadir na ngeen xam lu ngeen jox Serigne Cheikh ñëw na ci na nga leen wax ni ñëw na ci man ba mu jël ñàqu boppam teg daal di wax ne na nga leen wax ne itam ku ma gëm la ku ma wóolu la ku ma fonk la moom sëñ Cheikh sëriñ bi nee na sëriñ Cheikh ku gëm sëriñ bi la ku ko wóolu la ku ko yaakaar la ku ko fonk la itam yii sëriñ bee ko lim ci ci ci kàddoom démb wax ne naa ko jot li sëriñ Cheikh wax naa ko ko ci bëccëg bi ma ñëwee itam ci kanamu sëriñ Moustapha kon laaj na itam ma wax ko ci mbooloo mi ba ñëpp dégg ko mu wax itamit ne na nga ma ko santal ngir. ñi nga xam ne dañoo dañoo doon ak njabootam te fu mu leen jëmale ñu jëm fa liggéey bii nga xam ne Serigne Touba da koo jël dénk ma ko ma jël Serigne Moustapha tabax jumaa fan Ndakaaru ni ko demal di fa jiite mu dem di jiite mat ko sëkk ànd ci ak pas ànd ci ak yéene ba ñëpp teg ci seen bët ma jël Serigne Fallou ni ko dikkal di ma jiiteel fii ci Touba fi nga xam ne sa wajur wu tedd ba fi la daan taxaw di jiite mu ñëw fa jiite taxaw fa mat ko sëkk ànd ci ak pas-pas. te lool lepp coobare sëñ Cheikh la mu wax ne ma delu jël sëriñ Basiru ne ko yaay samay loxo yaay sama kat yaay samay tank yaay samay nopp yaay samay beut mu mat ko sekkitam ñepp tek ci seen beut ndax ndax ndax liko ko bi denk ku yaatu ta yaatal la ci te itam limay wax ñi fi toog ñëpp koo da ngay wax deug man nga ko seen kon sëriñ Cheikh yi fe yi taxna na bi wax ne mi ngi lay sant defin yii tax na sëriñ bi wax ne ma ngi lay sant bu wér kàddu yi nag kàddu yu rek la daanaka noo wax lu jégg li sëñ bi wax ndax ngeen bokk ngeen bokk sëriñ sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Baara Mbàkke bokk sëriñ Touba yéen ñaar yàlla dogal seeni waajur jiitu ngeen des fi yàlla dogal mu doon sëriñ Touba nga bëgg ko gëm ko euh, euh, faale ko safoo ko di ko déglu ci lépp doo yendu fu xamut doo fanaan fu xamut lii la sëriñ bi waxoon ne nañ ko nañ ko nañ ko seere ci yow ginnaaw bu loolu wéyee itam ma di ca yokk nit ñi ñu roy ci ku mel ni sëriñ Abdou Khadir ci jéego yi nga xam ne da ko doon dox nit nag doo wax ni nam meloon mënumaa mel noonu ba tax doo ko roy ndax avion hélicoptère mën na laa jëli fi yóbbu ndakaaru ci ñaar fukki minute waaye tamit bu hélicoptère jàllee oto bu ndaw mën na la fee jëli yóbbu la fi ci ñetti waxtu waaye bu jàllee oto bu mag mën la fi jële yóbbu la juróom-ñetti juróomi waxtu wala juróom-ñetti waxtu waaye boo doon dox itam kat foo sonn jugaat lu yàgg-yàgg di nga yegg nga jëm kon nag mag ñi fi ñu tegoon seen tànk ndax sëriñ Abdou Khadir day nit ku ragal yàlla la woon nit ku dëggu la woon nit ku mën a dimbalee la woon te yii ñooy yi gën a jafe ci jamono ji fi ne ragal yàlla ak dëggu ak dimbalee tey wax ngir yàlla tax lu néew a néew la ci jamono ji sa bo nekk ci dërëb jambour da ci wax lo ci wërta wax ñi ngay jël saw yiw di jox bu yiw wajexé ñu jël sa safaan di jox te kenn ku nekk ni nga xalaati sa aduna ji war nga xalaati sa ëlëk noonu ndax fa nga xamne buñu fa démé képp ku fa dem lo fa lo jëfutoon mu jitu di lo fa sa kër yi lu bari bari genn kër nga ci fanaan kër ga itam ben néeg nga ci mëna a fanaan benn néeg ba ben lal nga ci mëna kenn du yobbu sa alal kenn du yobbu ay auto kenn du yobbu ay kër kenn du yobbu dara te jamono ji boko ko xol tay yakamti gi dafa upp yakamti gi nga nit ñi yakamti nako ko na ndax da ngay gis ko xamni dafa judd di gor di dox dox ba am juroom ñaar fukki at nga doon gone gu am fukki at ak juroom mu romb la nga ne li mu am bu suba mu am ko pour catastrophe yi ngeen deg yépp danaka lool moy li nga xamni moko moo te itam nun ñi nga xam dañoo yaakaar seigne Touba dañoo wara xamni seigne Touba defar na lepp li ci dess mooy wax leente yiw jëf leente yiw rafetalal ko sëriñ tubaa te xam ne mënuñu koo ñaawal baax na ba noppi ndax sëriñ tubaa ilay xaadalaahu maa lam yàkkuni wala yàkkooni abadan li mumkini lastu asukku abadan fi kaw ni jaaral ba diajaban li kaw kenn ku nekk xam ne ni kon loolu ko sëriñ tubaa bu ko waxee